الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم يقول جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla suñu boroom subhanahu wa taala mi yeeyoo cant di ko dimbali ko moom mi nga xamante ni mooy dimbalaakoon bi di ko ñaan mu jéggal ñu suñuy bàkkaar moom mi jéggalaakoon bi di ko ñaan mu jubal ñu moom mi nga xamante ni képp ku mu jubal teg la ci yoonu siraatal mustaqim mucc nga waaye képp ko mu seetaan ci maandu téem ba nga réerit amul kenn ku la mën a jubalaat yàlla ñu yàlla jubal ñuy seede ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom subhanahu wa taala bokkaale ñeelu ko di seede ne suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la yàlla moo ko yónni yàlla na yàlla julli te salmal ci moom te barkeel ko moom ak njabootam ak saxaabaam yi ak képp ku topp ci njubam ba keroog borom bi subhanahu wa taala di doon suufam si ñuy dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla yàlla dañu ko dénk ci alquranul karim muy wax baadu auzu billahi min alcheytani rajim ya ayuha nnaas ay yéen nit ñi ubudu rabbakum na ngeen jaamu seen boroom mi nga xamante ni moo leen sàkk te sàkkoon nit ñi leen jiitu woon te benn objectif moo tax mu sàkkuñu mooy laallakum tattaqun ngir ñu ragal ko mbokk yi ci ragal yàlla googu ñu wax ci la jaam bi di amee ak sakina mooy dal ci dundam waaye lii nga xamante ni mooy jaamu yàlla al ibadatu ñi nga xamante ni ñooy ñiy jaamu yàlla ci jaamu gi ñuy jaamu yàlla seen borom subhanahu wa taala ci lañ ci la ñuy amee al aqibatu al mahmuda mujjantal goo xamante ne mooy mujjantal gu yàlla gërëm wal jannatul mawuda ak aljanna ji nga xamante ne yàlla mu ngi ko waajal ñi nga xamante ni mooy ñaka ragal yàlla ñu ci yàlla boole yàlla di wax ci alxuraan mu ni tilka aljannatu allati nuuritu min ibadina man kaana taqiya aljana na koy donn mooy ñi nga xamante ni mooy ñi ragal yàlla mbokk yi dafa bokk ci àq yi nga xamante ni jam bi moom la amal boroomam subhanahu wa taala mooy di ko jaam moom kese te bañ kaa bokkaale kenn jaamu yàlla ga ànd ak al ixlaas mooy sellal boo koy defit talaban li mardaatihi nga def ko ngir sàkku ci ngërëmam moom kese ngërëmu yàlla wa shukran ala azimi naamaihi ak di ko santit ci bépp xéewal goo xamante ne yàlla defal na la ko loolu mooy li jàll di sàkku moom lay xaar ci ñi nga xamante ne ñooy ay jaamam loolu nag bu ko jaam bi saxoo di ko def ci ngay amee lii di saada mooy dund gu tey gu dal te jaam bi saa su nekk booy julli yaa ngi di ko wax ci si sooy jàng sa fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow yàlla yow dongu de lañ war a jaamu waaye yow tamit de kese yaay kiy dimbalaate kon baat yooyu nga xam ne yaa ngi koy wax saa su nekk sooy julli ci sa fatiha dafa war a sax ci sa xol waaye say cër tamit di ko mandargaal mu bokk ci yi nga xamante ni dafa war a nekk yit tey jaam bi mooy nii yàlla bala mu lay yëkkati ci ay daraja ci ay maqaamaat faw dalay nangul njëkk sak ubudiya maanaam sak njaamu nga nangu ni yow jaamu yàlla nga moo tax kenn ku nekk ci doomu aadama yi da nga war di dugg léeg-léeg ci sa ruq mën a kan nga poser question sa bopp wàccee lépp luy garaat bu la dab ci kaw suuf nangu ni yow jaamu yàlla nga loolu la la yàlla di nangulee sag lépp loo koy defal te ci la yëkkati say maqaama in kullu man fi samawati wal ardi illa aati rrahmani abda kenn ku ci nekk xam ni ëllëg yawmal qiyaamati ni nga newee fii ci suuf di fi wàcc ñu fi nekk di di gane si àdduna noonu la ñuy delluwee ci kanamu suñu borom subhanahu wa taala te képp ku nekk ci kanamam la nga fay nekk mooy ab jaam kon loolu looy tàggat sa bopp saa su nekk di nangu sa jaam ni yow ab jaamu nga di def li nga xamante ne mooy la yàlla sant ci kaw suuf mooy di ko jaamu te bañ kaa bokkaale kenn kii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñuy doy misaal ci borom bi subhanahu wa taala bi mu koy jox alquranul karim loolu bokk ci garab yi gën a rëy yi doomu aadama di kaw am ci kaw suuf mooy mokkal alquranul karim kooku sharaf la yàlla bu lay teral bi muy teral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci alxuraan ni tabaraka alladi nazzala alfurqaana ala abdihi da ko nangul ak jaamam ba pare soo ko wàccee alxuraanul karim ci moom naka noonu it bi ko borom bi subhanahu wa taala di jox lii ñuy waaji joxe muy julli da koo rañaane waaye ba mu koy rañaan da koo nangul ak ubudiyam ba pare soo ko rañaan subhana alladi asra bi abdihi kon yàlla bu lay nangul say jëf day fekk boobu nga summeeku doon ak jaam kese mu soog laa yëkkati fam la yëkkati yaan ci yàlla boole ñi nga xamante ni nag ñoom la yàlla di nangul seen ak ubudiyya yàlla mu ngi leen di wax ci alquran karim ñoom ñooy ñan mu ni waa ibadu rrahmanu alladina yamshuuna ala al ardi hawna mooy jaamu yàlla yi nga xamante ni bu ñuy dox ci kaw suuf lépp lu yàllay tere lépp lu yàllay tere lu ñuy seexlu la lu leen ni caaxaan luy nekk seen mbir lépp lu ñuy def rek jaamu yàlla lay nekk te lu yàlla digle lay lay doon ak lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam digle ci loolu nag nee na ci la jàmm bi di yokkoo ci ay jikkoom izdadat axlaaquhum wa xumidat sifaatuhum boo leen xoolee seeni melokaan ñu nekk melokaan yoo xamante ni ñii du am lenn lu indice looy gis ci ñoom lépp lu sell lay nekk ci seeni melokaan wat man su nufuusuhum te ñooñu tamit di jaamu yàlla yi yàlla tudd ci alquran yàlla mu ne ñooñu ñooy nga xamante ni seeni xol du ñu am lenn fitna ñu dal la ñuy nekk wartaaxat qulubuhum te seeni xolit saa su nekk amuñu lenn fitna lu ñuy sentir nii ci ñoom wala ci keneen koo xamante ni ku bokkul ak ñoom la yàlla ñu yàlla boole ci jaam yooyu te mu nekk loo xamee ni nee na day dolli ak rafetal mooy ñi nga xamante ni saa bu ñuy lu ñuy def ci kaw suuf rek moo xam ci mbindeef bu ñu nekkal ci ab gox la wala fu mu mën a doon ci ab liggéeyukaay la waaye ñuy rafetal la di jëmale ci seen seen biir bokk ci yàlla kon al ibada li muy tekk mooy taazima at taazima li amrillah mooy di jëfe di màggal li nga xamante ni mooy digle borom bi subhanahu wa taala wal amalu bi ma yarda bihi wal amalu bi ma yurdi bi ma yurdi llah di jëfe lépp loo xamante ni lu yàlla gërëm la wal ihsan ila xalqillah ak di rafetal di jëmale ci ñi nga xamante ni ñooy jaamu yàlla yi ala zalika ittafaqat jamiu sharaa ci te ci loolu noonu moom la yonent yàlla daan yónni ñëpp daan dox di ci digal seen xeet yi yàlla doon yónni ci ñoom yàlla di ko ci alxuraan mu ni wa awxayna ilayhim fiala alxayrat li ma daan digal yonent yi ma daan yónni mooy ñuy def lépp loo xamante ne luy jur ak yiw la mu ni wa iqaami salaa lam daan leen digal nag ci jaamu yàlla mooy di taxawal lii di julli wa ita zakat ak daan joxe azaka wa kaanu lana aabidin mbokk yi nag nekkul jaamu yàlla mooy di julli ak di woor ak di joxe azaka wala di dem màkka rek déedéet jaamu yàlla gën naa yaatu loolu jaamu yàlla gën naa yaatu loolu tarbiyatul usra yar gi ngay yar sa njaboot jàpp ni lii masuuliya bu la yàlla dénk loolu ci xeetu jaamu yàlla la bokk bu bokkul ak julli bokkul ak woor bokkul ak natt azaka sàkku bi ngay sàkku ji xam-xam it xam-xam bi nga xamante ni soo ko amul moom mooy leer gi lay niital li nga war a def ndax képp koo xamante ne amoo xam-xam kooku jaahil nga jaahil mooy koo xamante ne li muy def xamu ko kon sàkku ji ngay sàkku ji xam-xam ngir di xam li yàlla digle nga koy def comme na nga ko diglee sàkku xam-xam googu noonu jaamu yàlla la moom la yoon saa sallam di wax ci xadis ni man salaka tariqan képp koo xamante ne xàll nga ab yoon am nga jël nga ab yoon yaltamisu fiihi ilman te yoon la boo xamante ne da ngay sàkku ji xam-xam sahala allahu lahu bihi tariqan ila aljanna yàlla dina la yombalal ak jaaruwaay boo xamante ni fa muy teerije mooy aljanna inna min yonte bi saa tamit waxaat na ba tey ci xadis bi ba tey ci jëf yi nga xamante nit ki da koy jëf mu koy jural ay jikko yu rafet yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na inna min ahabbikum ilayya wa aqrab wa aqrabakum minni majlisan yawma alqiyama axaasinukum axlaaqan ki nga xamante ne ëllëg yawma alqiyamati mooy ki may gën a jege ca fa may toog ca biir aljanna mooy ñi nga xamante ni mooy ñu gën a rafet jikko aqul ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwa alghafurur rahim allahumma salli الحمد لله رب العالمين يجزل الثواب للعابدين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla suñu borom subhanahu wa taala di julli di salmal ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi woy ba tey ci buntu bii di jaamu yàlla inna xabbal watan mbokk yi wa imarata ardihi ibadatun li xaaliqihi bëgg sa réew moo xam ci fi nga njëkk a nekk muy sa penc mi ngay dund ak la la wër lépp sàmm gi nga ko war a sàmm ak lépp lu fa wër loolu ci jaamu yàlla la bokk ndax yàlla dafa la wàccee ci kaw suuf ngir nga defar kaw suuf yàlla wàccee ci kaw suuf ngir ñu yàq kaw suuf ku nekk nag fa ngay njëkk a defar mooy fa la gën a jege muy sa gox bi nga nekk mu bokk ci li nga xamante ni moo yar moo war ci jàmm ba tey fa min waajibil mar'i an yataabada li rabbihi bi saa'i fi raqiyi watanihi bi an yajida fi amalihi wa yajtahida fi wazifatihi képp ku yàlla dénk bépp masuliya bu mu mën a doon bépp responsabilité nga fexe ko rafetal nga rafetal ko te def ki nga koy def di ko rafetal nga def ko te yàlla tax nga sàkku ci ngërëmal yàlla nga bañ koo def ngir mindeef yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mas a toog mook saxaaba yi radiallahu anhum benn waay romb leen nekk ci ak pasteefu nekk ku pasteefu ci la muy def saxaaba yi daal ni kii de ak a neexoon li muy def nii maanaam yëngatu gi muy yëngatu nii ànd ci pasteef mu def ko fii sabilillah ci yoonu yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni mu ni leen in xaraja in kaana xaraja yasaa ala wuldihi sigaaran fa huwa fi sabilillah bu dee dafa génn di kër këri ngir njaboot gi mu bàyyi ci ginnaaw kooku la muy def loolu jaamu yàlla la kooku mu ngi ci yoonu yàlla mu ne in kaana xaraja yasaa ala abwayhi shaykhayni kabirayni bu dee nit dafa génn ngir fagg ji wërsëg goo xamante ni da ci yor ay wayjuram yu mag yi nekk ca kër ga mu yor seen dund ba tey kooku li muy def nee na fi waxoo fi sabilillah ci jaamu yàlla la nekk mu ne tamit wa in kaana yasaa ala nafsihi yuaffifuha bu dee ni dafa dem ngir loo xamante ni luy jëriñ boppam la maanaam liggéey amul lenn lu gàll ci moom maanaam mu doon célibataire loo xamante ne dara waru la waaye yaa ngi dem di waajal sa avenir ci kanam nee na ba tey kooku noonu jàpp leen mu ngi nekk fii sabilillah mu ne nag bu dee ni dafa nekk ko xamante ne nag dafa génn rek li muy def mu ni waa ji bu dee lu muy def nii moom ànd ca Pastef da koy def ngir wonewu ngir ñu ni kii de ab jàmbaar la nee na kooku ci yoonu seytaane la nekk yàlla nañ ci yàlla musal kon li yoon saa salaam di jàngal daal ci ci xutba bi mooy jaamu yàlla bi li ko yàlla di doy ci kaw suuf mooy mu jaamu ko te bañ kaa bokkaleeg dara jaamu yàlla tamit yaatu na yaatu goo xamante ne yemul ci julli woor natt azaka dem màkka waaye lépp looy def nga rafetal ko nga sellal ko te yàlla rek tax loolu jaamu yàlla lay tudd ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا الى صراطك السبيل صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الاخره وسلام مع المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى الصلاه الحمد لله